peut-être ci moom wala keneen ak keneen ñu bañ koo ñu bañ koo ñu bañ koo defaat parce que aussi euh, euh, Bougane bi muy dem euh, ñu rappeler rek que dafa doon dem ngir yóbbu aide

parce que de fait répondre à l'appel de détresse des populations de Bakel. une partie de la population oui. mu mhm. des aides humanitaires des moyens propres mhm. mais acheminer vers Bakel les leaders de mhm. mais bi agenda ko lire que xam nañu ni. moment arrêté Bougane. te communiqué officiel bu 13h40 mais 13h30 déjà Bougane euh, Diomaye quitté na déjà. quitté na quitté na euh, aérodrome Boubakel. c'est-à-dire a un décalage de 10 minutes C'est le premier élément de l'analyse. mais est-ce que est-ce que ñi que le président a fait Non. nañ information que président jóge na fa. nga président fu muy nekk yow boo ñëwee da nga koy xam parce que dañ koy jalonné dafa amul ils jalonnement. Mm-hmm. gendarme yi doon def témoignage sax ñoo doon wax ni amul jalonnement. Mm-hmm. barrage amul un mhm. ça veut dire que le président nekul won a mhm. benen élément d'analyse moy bo xolé arrêté bougan moi poste bu mhm. c'est à 14 km de bakel jomay était à 9 km 10 km après bakel ñom ñaar sen digënté bo xolé distance bi amna 23 24 km c'est digënté dama un exemple de terre à terre dafay mel ñu ne la président Diomaye bu nekkee Rufisque. Mhm. yow mi nekk place de l'indépendance. indépendance mënoo mouvoir mënoo mhm. déplacé wu. 25 mhm. kilomètres diggante Rufisque ak euh, place de l' indépendance mënoo déplacé wu. deuxième élément d'analyse. analyse troisième élément d'analyse, analyse mooy lan. Diomaye est venu par hélicoptère. il est reparti via hélicoptère. c'est-à-dire yoru woon convoi terrestre boo xam dafay daw ci kaw tali bi loolu il faut que sénégalais yi xam ko c'est-à-dire mom dafa survoler les zones impactées mhm. bi mu survoler les zones impactées dem fi nga xam mooy Koungkané mhm. taxaw ak les autorités préfectorales mhm. et administratives waxtaan ak ñoom def benn entretien bu bref de moins de 30 minutes 13h30, fekk na mu nekk aérodrome bu Bakel destination Dakar bi ñuy arrêté Bougane c'était à 13h40, selon communiqué bu gendarmerie léegi loolu boo ko xoolee daf lay wan le président Bougane dañ ko tooñ quatrième élément d'analyse bi mu taxawee devant le procureur et le juge. Mhm. Euh, deux gendarmes yi nga xam des def témoignage dañ def témoignage à décharge. Le mhm. président Bougane. Mhm. Euh, outragé wu Doroulen, Saga Oulen, saagawu leen waxu et puis aussi refusé d'obtempérer, Refusé deful refus d'obtempérer. mais refusé d'obtempérer bi lañu lañu lañu lañu kii léegi waaw léegi léegi témoignage à décharge le procureur a doon def instruction à charge man faut charger Bougane. ñi def témoignage fekk mbir mi ni loolu amul léegi nag ñun question bi ñuy posé moom mooy kan moo bind communiqué bu gendarmerie exactement loolu laa doon bëgg a posé léegi dañu ne woon procureur moo ko bind ba signé ko léegi problème bi mooy ña nga xamante ne ñoom lañ jàpp ne ñoom ñooy témoin ñoom lañ waxoon ñooy témoin ñoom ñoo dem seetal bugaan foofu ci li la amul euh, euh, euh, loolu parce que mbir mi teguwul ci yoon ak ñoom seen moom bi mu génnee mhm. daf ni je pardonne. Mhm. jéggale naa. Mhm. donte dañ ko don def comme punching symbole, diko ping pong diko passanté def nañ ko non way ba xoti tenue bi xoti chemise bi. lolu ci image ñep gis nañ ko. Mhm. ci ko xamni ben délit rek la def. moy répondre à l'appel de Bakel pour acheminer aide humanitaire. lolu daf lay rappeler li xew. bande de Gaza bande de Gaza rek ngay gis ONU di acheminer aide humanitaire israéliens yi taxaw ni aide mhm. humanitaire bi du accéder. Mhm. du dugg c'est-à-dire kañ la acheminer aide humanitaire nekk un délit dans un pays. bu la gendarme yi sur place. Mhm. taxawee setal man gisuma benn communiqué bu gendarmerie bu wala ma kan bind ñun kan bind problème. ba comme na mais comme dafa am ay mbokk te gëm sa pour il faut que ñu porter plainte non mais jéggale na plein plein non porter plainte lan. Mhm. dañu derrière cette affaire. Mhm. kan derrière ce communiqué. Mhm. parce que gendarme yi sur place nga xam ñoo gëna pour wax la fa xew ñom ñoko sétal mënu ko procureur def na pour requérir une euh, inculpation. refus wax ci lu tous les éléments yi nga xam ci euh, bi il faut daaj ko mais gendarme bi ñëwee dañ ko setal ci loolu lépp mhm. te loolu dafa am lu mu war a joxewaat mhm. muy ni ki bu demee procureur de la république am benn volonté affichée mhm. des gendarmes ñëw taxaw wax le contraire mu lay wan ni Sénégal war nañ amaat une révolution des mentalités war nañ amaat une relecture des perspectives xam Sénégal fi ñu tollon dem war nañ ko mais utiliser les forces régaliennes de l'État mhm. pour minimiser un adversaire ou bien pour réduire au néant loolu du gentleman Quand le président Macky Sall a dit je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression Il na fait des ci ay calcul stratégie mais yow bi nga ñëwee da nga doon wax ni loolu baaxul dañu am une rupture systémique mais yow nga ñëw à moins de huit mois yaa ngi commencé répéter les mêmes pratiques. Mhm. yi nga xam ne yaa ko dénoncer il y a quelques mois. Mhm. mais ça fait peur utiliser justice mhm. utiliser les forces régaliennes de l'État mhm. ñaata interdiction systématique de marche le mo fi am mhm. keroog mouride biñu bi bëgg def marche dañu déposer ñu bañal leen ko <laughs> marchand ambulant biñu bi bëgg def marche dañ leen ko bañal c'est-à-dire ku fi déposer marche légui dañ koy bañ euh li nga xam moy li normal moy interdiction bi exception bi moom moy lan moy ñu autoriser autoriser le marche pourquoi loolu ci ban réew la ñu nekk. dañuy dañuy hmm. observer ben régression démocratique bu notoire. Mhm. avec l'avènement de de Diomaye et Sonko. Mhm. te loolu dama japp ni fi mu ñu mhm. parce que observateur ñi ngi fi mission onusienne ñi ngi fi ñu ngi ñuy xool mhm. seen i ambassade ñu ngi fi te dañuy nettali seen i réew li xew ci biir réew dañuy nettali seen waaw am na yoo xamante ne dafay tànn dañuy rendre compte seen réew day tànn image yu Sénégal dafay tànn day tànn image Sénégal donc surtout surtout suñu côté côté côté côté justice bi donc euh, war nañ ko war a mën a xoolaat mais ba tey dañuy desandi ci euh, Bougane euh, ginnaaw bi nga xamante ne ni joxoon na ultimatum Ousmane Sonko pour mu guen wax ci li nga xamantene ni mo ci euh homosexualité bi nga xamante ne dañ koy criminaliser waye melni peut-être euh, réaction wu Sonko wala régime Sonko dafa dafa desandi ci côté boobu noonu. dinaa la xamal ben affaire de euh, président Bougane ni ma ko xamé moy lepp lu mu la wax rek c'est d'abord documenté. téena document bi bu la junjee rek téena document bi. Ah, question bi li tax mu koy répéter di ci appesantir. ba paré di ci di ci insister. di ci insister c'est parce que amna lu mu teelu béton. Hmm. béton parce que tay gis nga li xam ci lan lañu wara indi. Hmm. mooy mécanisme yi ñuy financer les partis politiques. Hmm. gis nga parfois sénégalais dinañ leen gëlëmal ci benn phénomène nan leen ay Kopar Express ay nangam nangam. mais Kopar Express bi lan moo nekk derrière lan mo koy alimenté. lan mo koy alimenter mais loolu nit ñi war nañ ko xam est-ce que le sénégalais lambda moom mooy ñëw.

bim falo encore nek premier ministre ñu nommé ko. Mm. recevoir na Mélenchon. Mm. bay ko mu def un discours historique man ma tax ci législation bu France ñu duggal ben ki bo xam da fay légaliser mariage entre homosexuel étudiant yi di tàccu. Mm. mu taxaw répondre ko ci appel du pied bi ni ko. Mm-hmm. Sénégal ñi amuñu fi problème parce que liy toléré la ñu koy toléré. Mm-hmm. dañuy toléré homosexualité. manam mm-hmm. wax na ko li mu bëgg dégg. léegi nag. Sénégalais ñoo war a jël seen mesures beneen bi mooy bi gën a récent. recevoir nañ fi xam palais de la république. jupe rob ak jupe laa xàmmewul la bu gàtt la. recevoir nañ fi xam ni sol <laughs> mais yooyu yëpp boo ko ci xel mu dafa am lu recevoir un ballet de góor mm. ces derniers temps ci mm-hmm. lan Cheikh Omar Diagne il était. trop prolixe ci affaire góor jigéen boobaak léegi yeeyu ci yàbbi te da cee am mm-hmm. xam-xam nag. Mm-hmm. lan moo mm-hmm. tax mu nopp ci man silence boobu seen silence intrigant ci man. ñàkk kees gi ñàkk <laughs> moo daf ma yéem te pourtant bi ñuy wax waxu xalif général yeeg yooyu di wax waxu mosquée yi teewul woon làmmeñ ñoom ci poosam dafa taxaw ni mos grande mosquée bu Touba am na ay insigne maçonnique euh, xasida yi nga xam moom la fi mag ñi bàyyi woon dañ war a xoolaat remettre ko à jour parce que ñom dañuy juum amna ci lo xamni déméwul mhm. demewul nous mhm. waxé ci waxu magal gan nous nangam dañi au nom de la rationalisation mënul jël kenn en charge mhm. ak gan gum mënti doon c'est-à-dire ni na ci wax ci débat yo xam c'est des débats stériles ñi wax ci waxu gor nga xam pour aborder ay débat homosexualité di Il y di ci def ay conférences partout yow fal la qu'il le recevoir ci palais bi nga mhm. Mhm. nga les moyens généraux. Mhm. dem université temple du savoir. même lieu c'est symbolique. mu taxaw tenir ce discours. Ce premier ministre fait. feelu ko ba

deuxième institution du pays. Mm. Madame li mu gëmoon bi mu pouvoir bi. Mm. ak bi mu pouvoir bi. Mm. dafa dafa def mise à jour Mon logiciel bi ko. bi ko bi ko kii mise à jour fi mu nekk nii beneen sonko nga am. sonko bi doon ut réew mi. Mm-hmm. ak bi gérer réew mi actuellement mm-hmm. gouvernement Beaucoup. Mm-hmm. Son sonko bi deuxième institution du pays le la bëgg a yok ko ci ay pouvoir changer texte yi nga xam moy régir réew mi installer fi benen système de gouvernance loolu kay bu la neexee bind leen ko. Mhm. bis bu ñu amee majorité confortable à l' assemblée nationale. Mhm. di ngeen gis deux deux sénégalais yoo xam dañuy jàkkaarloo. Hmm? ah oui qui qui euh, gagne par la violence règne par la violence. loolu mhm. adage la boo xam ni. ko même même même opposition bi est ce que ñoom aussi bu ñu amee majorité yaakaar nga ni dinañu dinañu criminaliser. non c' est que dafa am dafa am des profils yoo xam ni. ci opposition bi dañ leen soxla à l'Assemblée nationale. Mm-hmm, ku mel ni Barthélémy Dias. Mm-hmm. soxla nañ ko à mm-hmm. dañ ko soxla à l'Assemblée nationale. ku mel ni Pape Djibril Fall dañ ko soxla ko fa soxla. ku mel ni président Bougane dañ ko fa soxla. ku mel ni Cheikh Oumar Youm. Euh, euh, Cheikh Tidiane Youm. dañ ko soxla à l'Assemblée nationale. noonu laa ko mën toppee ci profil yi nga xam ñoo nekk ci sàmm sa kàddu ba mu jeex. beneen boor bi ci intercoalition bi sax da ci am des profils yoo xam ne. soxla nañ la à l'Assemblée nationale. Mhm. mais tey boo jëlee la liste de Pastef tey. Mhm. yow Cheikh Bara Ndiaye da nga ko soxla assemblée nationale. Hmm? <laughs> le Miss boobu nu mu koy waxatee sax euh, Bousso. Mhm. da nga ko soxla à l' assemblée nationale ban valeur ajoutée la la mën a indil. c'est-à-dire boo koy wax nag sénégalais yi ñu ci bëri dañuy def focus ci 54% quatre pour cent yi. gis nga 54% pour cent yi. parfois damay togg samay xarit man leen. 54 yi échec la ci jomay ak Sonko. Mm-hmm. Mm-hmm. xam tax mu nek échec. Mm-hmm. élection yi nga xam moo amoon ci diggante 2024 euh, li ci amoon. élection yi deuxième tour la woon. te ci Sénégal président yi fi jaar yëpp dem deuxième tour dañuy am score plus de 60 pour cent. moom mu am 54 pour ci élection yoo xam caractère deuxième tour la am échec la ci moom. looloo waral nag Sonko xam na de. looloo waral muy tendre la main aux opposants di leen xëcc pour ñu dugg ci biir pouvoir loolu lay def ci suuf mais discours bi muy tënee ci kaw leneen la